mbokku jullit yi mbokku taalibe yi alaykum wa rahmatullah mbokk yi tay ñoo gën ci fukkeelu guddigi ak ñaar mbokk yi tay mi ngi solo ci fukki rakka raka bu ne fatiha ben yon ak qul huwallahu ahad juróom ben yon kon ñu war ko fukki raka la raka bu ne fatiha ben yon ak qul huwallahu ahad juróom ben yon kon mbokk ñu jox leen digg ak daje ba ëlëg ak jàmm inshallah taala allahu akbar